السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه، مبكو عيد ماضي تيفي من سيخ سيد الحاج مالك ما دلو سوات أجين تبارك الله تي سجو تيري سيرة خير الأنبياء سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم أه، فسيني كو جاري بندو مام سيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه في تسين تلفزيون عيد ماضي تي تيفي دلين بايلو خلق باق دلين سمت دلين قرم ci teewlu bi ak xerew bi ñaan borom bi yàlla na borom bi dolli ñoo defal jàmm mel ni ah, Dramé suñu bind ker bi passé ñu ngi toll woon ci fi nga xamante ni la samam si la xaj Malik waxe woon ma ar ada raadu wal warqaau tanqiu min ahdiliha wa jara dam min alqalami tey nag tabarakallahu ñu fas yéene dugg ci bunt bi nga xamante nii wala bëy yi nga xamante nii borom téere yëpp nee nañu fi la xilaasu zab départ ndax Maodo daf ko tënk ci ñaari waaw yi wa innahu aca ak wabnul xamaama la tënk téere bi di xilaasu zaab fii sirati xeyril arab ñu fas yéene ko ànd ak yéen ci weeru koor wi tabaarakallaahu ba la ko wees ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci seen émission mu mel ni nag Dramé tey ñu ngi ci fukki fan yi nga xamante ne moo nekk ci dëgg bi di fukki fan yi nga xamante ni tabaarakallaahu borom téere yëpp wax nañ ci yiw ak baraka bu nga xamante ne am na ci weeru koor koor dafa doon loo xamante ne lu màgg la koor dafa am lu julli amul koor dafa am lu asaka amul koor dafa am lu aj màkka amul koor dafa am lu jaamu xeetu jaamu yàlla yu bari yëpp amul ñu ne ko lan la koor am te xeetu jaamu yàlla yëpp amu ko mu ne koor ci biir koor la suñu borom defee guddik laylatul qadri te guddik laylatul qadri képp ku ko taxawee na nga ko war a taxawee ne la wóor ni alquran ne yaa ngi mel ni ku jaamu borom junni weer koo jaamu borom bi junni weer jaamu yàlla nangu ah sa njot dëgg dëgg dëgg mooy yàlla tàbbi la aljanna ak képp ko am ak képp koo sopp ak képp ku la xam yàlla nañ ci yàlla boole ci barke yonent bi salaay salaam gi nag yàlla bu mu nekk suñu mujj koor nga koy fekke déwén yàlla nañ ci yàlla boole koor nga ne li ci nekk yonent bi salaay salaam ne xeetu gémmiñu ku woor moo gën a neex moo dàq xet ki nga xamante ni dafa sangu sañse parfum parfum bi gën a cher kooku bi xeetu ñu ko woor moo ko daq ndax uurul ayni yi ak malaaka yi dañuy dëpp seen gémmiñ dëpp seen nopp di ko teg ci ki nga xamante ni dafa woor ci jamono jam wooree moo xam dafay tudd yàlla moo xam dafay jàng alquran moo xam dafay dox mbokk moo xam day wax lu rafet loolu lépp yiw boobu am na ci koor te su yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi leen di xamal ni képp ku woor weeru koor ba mu jeex suñu borom jéggal na ko bàkkaar wi at wi weesu ak bàkkaaru at wi ñuy dugg yàlla nañ ci yàlla boole sama am Seydi Haj Malik wax na tey wa innahu is araada allahu nasatana abana min nuurihi nuuru nabil alam cey ma Maodo ne wa innahu yëgal ni lii mbir tey mbir is araada ba nammee is araada ba bëggee kan allahu suñu borom nas atanaa sos mbindéef yi nas atanaa bind doomu aadama nas atanaa bind lépp lu borom bi amal abaana la feeñalee abaana la faccalee abaana la génnee abaana la leeralee min nuurihi ca leeram nga moom suñu borom ndax allahu nuuru samawaati wal ard masalu nuurihi ka mishkaat kookoy suñu borom subhaanahu wa taala abaana la feeñalee min nuurihi ca leeram ga nuuru nabi yi leeru sayduna muhammad waaw ñu ne Maodo kuy muhammad moomu mu ne al alami mooy ki ñëpp xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla bind xam na ko ndax keroog ba suñu borom bindi yonent yi ni leen dama leen bëgg def ngeen di ay yonent tappal leen ay garat mais pour ma tappal leen garat foog ngeen d'accord ni ki nga xamante ni mooy seen sëriñ yi ñëpp ki nga xamante ni mooy seen sang yi ñëpp كوكوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودمي فرج القرآن تسوط على إمران سيب عمني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب الحكمة سيب عمني ما قلين فتلي نتني ما قلين فتلي دوم آدمي كروك بسيب عم بندي تفي كلري كو خمنت جدي جنتي مأجننتي بمول لير لي تيري القرآن تيري زبور أكتيري تورة أكتيري إنجيل bépp te bu ne balaa moo dem di déclaré ni Seydina Muhammad mu ngi waaj a ñëw ngeen nangu di moom mooy seen patron ngeen nangu di mooy seen chef man ma d'accord ak yéen daal di leen bind ngeen di def nekk ay nabi waaye ngeen nek ay mursal waaye lépp ci barke rasulullahi yenent yëpp d'accord ak suñu borom suñu borom ni leen man dinaa leen jàpp seede ngeen jàpp seen man seede ni ëllëg dina ànd ak yéen ñun ñëpp ñu xam ni moom mooy Muhammadu rasulullahi فوفو لا سمام سيد الحاج مالك ني بو مؤمي لير كان كان كان كان رك لا يالا بيد فوفو تاموي لير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودمي فلي تي بيد سيد ابو سي رضي الله تعالى عنه نور النبي حبيب الله صفوته من نور ربي بلا ريب ولا تهب سيرن بابا بكر سينا لير سيدنا محمد موي لير صوب بيغا خامتيني موم لا سوني بروم عمل تي لو امو بن سيكي ساك ak lu ngay amul benn ayib من مولني آه، إن العوالم نكي عالم عليها يفيدك وصافي لها أي يفيد سوف أشيئة نيوم نيب أي تينير لك أشيئة نيوم نيب دانيو نيو دي ديكلاري سيدنا محمد طلعت يوخا من فنكنا من أفضل النسمة تنجن في تكنوسي وعلم خمر الله سوني برام واو لن لا سوني برام خبر أكل لا سوني برام خبر نبوته أك دون يننتا مم سيدنا محمد هادينا كي أجي جندا كوسوي وكانت تنكون نجمونا جوكو يالا دي خمر جمونا جوكو يالا دي أنوسي يو سيدنا محمد يو يا نك سيد الأولين والآخرين yow yaay nekk imaamul anbiyaa yow yaay nekk xaatimu rusul yow yaay nekk xaatimul anbiyaa foofu sama am Seydi El Hadj Malick ne suñu borom mu ngi bind aadama ci diggante ruu ak jëmm ba kaanata nekkoon na ah aadama mam aadamu bay na nafsi si solu jëmm wan nasami ak ruu uyuunu larwaaxi sewnde ruu in bajasat ñoom ñëpp ñu ngi bàyyeekoo. min nuuril huda ca leer gu jub fa innahu nit ki leeru sayduna muhammad al jinsu la ala mooy jëmm ji féete jëmm yëpp kaw maadinu sutumi waaye mooy sellu mbellu wurus bu gën sell ci mbellu wurus yi wa xalqul axlaaq yónni gi suñu borom yónni yenent yi bi yàlla yónni mam aadam ba ci ñuy ay yenent yoo xamante ne suñu borom moo leen yónni ñii mu jox leen ay téere ñii joxu leen ay téere waaye mbooleem yenent bu mu balaa moo dem di déclaré mbiru Seydina Muhammad samam Seydi El Hadji Malick wa xalqul axlaaqi bind gi yàlla bind bindee fii muqaddimatun loolu lépp tàmbalikuwaay la li zuhurihi ci feeñu Seydina Muhammad baasul anbiyaa yónni gi yàlla yónni yenent yi muqaddimatun loolu tàmbalikuwaay la li zuhuuri yi ci feeñu sayduna muhammad faalam xamal lii ma wax yow mii jàkkaarloog man ci Aynu Maadi TV pour xam ana kan mooy rasulullahi ak leeram sama modo li faalam xamal lii ma lay wax nga takk bu wér wala tanamita bul nelaw bul boo nelawee sama alaaji Malick nee na lu bëri dina la raw ci leeru rasulullahi ci biir téere bii di xilaasu zahab ñu ne Maodo ak la mu ne fii aalamil mulk nekk na ci aalamul mulki wal arwaax ak aalamul arwaax taabiatun di topp li ruuxi ci ruuxu Seydina Muhammad mboolem awaalim yi bu yàlla amal moo xam ya ca kaw moo xam ya ca suuf moo xam yi ñu teg bët moo xam yi fàddu suñuy bët lépp lu ca mën a am balaa moo am dañu ko naan toppal leeru Seydina Muhammad hada lii gaayatul karami mooy jeexitalu tedd nga tedd nga daal neexul ba neexul mënul paase lii kon mbokk yi kookoy leeru Rasulullah كوكو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيغا خامتاني سوني بروم ابرز حقيقه المحمديه من انوار السمد دا مم جيلي موم بروم دقي دغ دغ حقيقه المحمديه مونكو جيلي تي لير ياغا خامتاني موي لير جوبلو وايام موم سوني بروم سبحانه وتعالى كون ñu teg fofu suñu baram ñu delu ñu dugg nag ak yéen ginnaaw gi leer gi amee am na ay kiiraay ya ca topp nu fa ak nan la fa demee Maodo dina ko xamale fii ci seen télévision Aïnou Mady TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi